asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ngeen dal ak jàmm ci xibaari diggi bëccëg bi bayeekoo QTV ak Q radio bëccëgub tey bi ngeen di si ànd ak Xadijatu Koli ñu seeti boppu xibaar yi ëmpalewuñ ne si njeexantalu semaine bi taw bu am doole moo wàcc ci biir réewu Gàmbi bi mu tax naka ñu bari yàqule ci ci altine bi njiitu réew mi président Adama Barrow moom ànd na ak kilifa yi nekk di liggéey ci banqaasum nguur gi ñu dem ko askan wu yàqule mu dig leen ne nguuram gi naka mu ngi tëral ay koppar yu war a toll si ay million ci xaalis si dollar mu doon ay projet yoo xam ne naka dañ leen see jàppale pour saafaraal seenub jafe-jafe gi ba tey ci yàqute goo xam ne nag am na diggante samedi ak dimanche ñi nga xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci banqaasu nguur gi muy ministre yi ak it ñu nekk di liggéey ci wàllum nguur gu ndaw gi ñoom it génn nañ nag pour nemmee ko ji askan wu yàqule ñu digle ne dina leen saafaraal seenub jafe-jafe gi ministre yi bu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi ñoom ñoo lëkkaloo ak seen àndandoo bu ci mel ni banxaasu World Bank bi ci altine bi ñu commencé naka di bindu nit ñi ci health insurance scheme boo xam ne naka indi nañ ko ci biir réewu Gambie bi ñuy ñaax doomi réewi Gambie ni pour ñu génn naka ñu bindu si campagne gu ñu nekk di def tamit naka ñuy ñaax askan bi pour ñu jàppale leen ci liggéey gu ñu nekk di def jëmale ko si mbirub health insurance scheme bi mbokk yi liya doon bopp xibaar yi ñu tax xel bu ñu dellu see ñu yaatal xibaar yu fi jot am ci bëccëgub tey si njeexantalu semaine bi taw bu am doole moo wàcc bayeekoo ci guddi samedi bi dem naka ba ci dimanche bi ñu bëri naka yàqule am ci ñoo xam ne naka seen kër yi dañoo daanu ginnaaw loolu naka ci altine bi njiitu réew mi président Adama Barrow moom ànd na ak yenn kilifa yu nekk di liggéey ci banqaasu nguur gi mu dem naka nemmeeku si ñenn ñoo xam ne naka ñu ngi yàqule te ñu nekkee sa diwaanu Greater Banjul area bi ñoo xam ne naka ñu ngi yeewoo sa diwaanu West Coast region bi njiitu réew mi président Adama bu mu yeggee ci place yi dig nañu yàqule ne si jamono jamono ji naka nguuram gi ñu ngi tëral koppar gi war a toll ci ay million ci xaalisi dollar mu doon projet yoo xam ne naka dañ ko fas ne liggéey ci biir réewu Gambie bi mu ne ci projet yooyu naka nañ leen ci boole jàppale leen naka pour safara leen jafe-jafe goo xam ne naka boobu lañ jànkuwanteel muy yàqule goo xam ne naka am nañ ko njiitu réew mi président Adama Barrow moom gaaral na kàddum ci nemmeeku goo xam ne naka def na ko ñu yàqule ci altine bi mu xamal askan woo xam ne naka ñoo nekk di yeewoo sa diwaanu Ibo town bi abuko Néema Kunku Bundung Jabang Estate Brikama Jambur Mariama Kunda Kotu Bridge ak ñu nekkee sa diwaanub yoonu Sénégambie bi mu ne yoon yoo xam ne naka yooyu lañ nekk di defaraat ca diwaan googu dañ ubbi naka place goo xam ne foofu la ndox mi di mun a jaar pour dem naka ci géej gi ngir ñu mun a aar naka yàqute goo xam ne am na ci samedi bi wala jax si dimanche bi ñu bari ñoo xam ne naka dañ dee jaaree ci boor yooyu si jamono ji mënuñu faa romb naka ngir taw bi wala sax ndox bu am doole goo xam ne naka mu ngi taa ci yoon wi njiitu réew mi président Adama Barrow moom ci nemmeekom gi njiitu réew mi président Adama Barrow moom wax na ne nemmeeku ko xam ne naka boobu la nekk di def ku ko jiite di mbëkk néegam gi muy vice président Badara Diouf moom naka mu nemmeeku gaay ci dimanche gi xamal na leen naka si jamono jii gis nañ yàqute goo xam ne naka askan waa ngi koy dund ak itamit ñàkk kontaante goo xam ne naka ñu ngi koy dund si jamono ji ñu ne naka nawet gi mënuñ koy taxawal waaye naka nañ def seen kéemtulaay kàttan pour gis nañ jàppale nañ askan wi ndax naka yàqute gi askan wi naka yàgg nañ di ko dund ay ati at ci ginnaaw njiitu réew mi président Adama Barrow moom nag dig na ñu yàqule ne nguuram gi nag nañ taxaw pour jàppale leen ci num gën a gaawee dinañ leen jàppale ci wàllu dund ak i tamit fu ñoo jonkoon ba balaa ñoo amee nag néeg mu continué di wax ne nag nguur gi si jamono ji am na ñaari projet yoo xam ne nag ñu ngi ko tëral pour gis ne jàppale nañ leen ci wàllub yoon gi ak itamit taxaw leen ba nga xam ne nag ndox mi du mën a duggati seen kër yi waaye nag nañ defaraat yoon yi ci anam goo xam ne ndox mi nag dina am fu moo jaaree pour dem ci géej gi ba tey tamit njiitu réew mi président Adama ci nemmeekoom gi dem na nag ci yoonu Tabokoto bi sa foofu nag mu ngi leen di xamal ne yoon gi naka nañ ko defaraat pour gis ne ndox mi naka dina am fu moo jaaree ba tey tamit mu continué di wax ne mu ngee masawu naka ñi nga xam ne ñoom ñoo yàqule ndax naka lii mettit la te naka borom njaboot bu yàqule loolu naka dafaa doon ab jafe mu ne mu ngi leen di masawu di wane ñàkk a tamit di leen xamal ne dina leen taxawu dina leen jàppale ci nu mu gën a gaawee mu continué di wax ne naka si jamono ji mu ngi fas yéene lëkkaloo ak ñi nga xam ne naka ñooy yëngu ci wàllu defaraatu yoon yoon gi pour gis ne naka indi nañ ay machine yoo xam ne naka yooy pompe ndox mi pour naka bu mu dugg ci kër yi mu demee naka ci géej gi mbënd moo xam ne naka daf dee dugg ci kër yi saa yu nekk rek nit ñi dañ si dee joxoñ baaraam ne nguur gi la ndax naka dañ war a defaraat yoon yi ndax yoon yi amuñ naka place boo xam ne foofu la ndox mi di jaaree moo tax naka muy dugg ci kër yi waaye naka terewul ñi nga xam ne naka ñoom ñoo yàqule jaajëfal nañ jiitu premier président Adama Barrow ak kilifa yu nekk ci bànqaasu nguuram gi ci matuwaay goo xam ne naka jël nañ ko pour yegg si ñoom si jamono joo xam ne naka ñu ngi dund ab jafe tamit naka ci taxawaay goo xam ne jël na ko pour masawu leen ci mettit gu ñu nekk di dund si jamono ji njiitu Adama Barrow Barrow moom nemmeekoom gi ànd na ci ak ñi nga xam ne naka ñooy cabinet ministre yi mu ànd ci ak technicien yi ànd ci tamit ak kilifa yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci bànqaas bi seetu wàllu bi yàqute gi bu ñëwee ci biir réewu Gambie bi nemmeeku bi tamit ànd na ci ak mayor bu KMC député mayor bu Banjul ak it kilifa yoo xam ne naka ñoo nekk di liggéey ci bànqaasu KMC bi mbokk yi ba tey rek ci yàqute goo xam ne am na ci taw goo xam ne nag mu ngi wàccoon ci samedi bi ak dimanche bi kilifa yoo xam ne nag ñoom ñoo nekk di liggéey ci baaxaasu nguur gi ak it ñoo xam ne nag ñoo nekk di yëngu ci wàllum nguur gu ndaw gi ñoom it génn nañ nag pour dem nemmeeku askan woo xam ne nag ñoom ñoo yàqule ñu yegg nag ci yenn kër yi pour masawu leen tamit nag bàyyi xel yàqute goo xam ne nag am nañ ko waxtaan ak ñoom seet nag nan lañ koy mën a saafarale ci num gën a gaawee li war a toll nag si ñaar fukk ak ñeenti waxtu la taw bi nag nekk di rot ci biir réewu Gambie ñi nga xam ne nag ñoo nekk si diwaanu Greater Banjul area bi ak it ñoo xam ne nag ñoo nekk si diwaanu West Coast region bi mbëkkaneegum jiitu réew mi ak yeneen kilifa yi naka ñoom ñoo dem sa foofu vice président bi di Badara Alieu Diouf moom ak yenn kilifa yi nekk di liggéey ci bànqaasu nguur gi ak yeneen ministres yi na génn nañ pour nemme ko ñi nga xam ne naka ñoo yàqule te ñu nekkee naka si diwaanu Greater Banjul area bi fu ñu njëkk a yegg nga xam ne naka moo nekk sa foofu ñu xool naka ñi nga xam ne ñooy driver yi ak ñu nekkoon di yëngu ci wàllub dem ak dikk bi jafe-jafe goo xam ne naka ñu ngi ko doon jànkuwanteel ci wàllub yoon gi vice président bi di Badara Alieu Diouf moom naka wax na meyo bu KMC pour naka mu lëkkaloo ak nguur gu ndaw gi jël naka matuwaay gi lëkkaloo ci ak banqaas goo xam ne naka ñoom ñoo nekk di saytu wàllub dëkkuwaay gi pour ñu saafaraal jafe-jafe gi ci num gën a gaawee ba ñu bàyyee ko foofu yëgg nañ naka sa New Jos Wang ak i sa London Corner sa diwaan googu naka bokk ci Kanifing municipality bi yoon woowu naka bokk ci yoon yoo xam ne naka ñu ngi ko nekk di defaraat mu bokk naka si projet OIC seen liggéey bi naka si jamono ji lu tax naka mu yéex tamit itamit matuwaay goo xam ne naka ñu ngi ko nekk di jël pour pare ko yegg tamit si Joswan constituency sa foofu naka ñaax na nguur gi pour naka ñu taxawu leen ci nu mu gën a gaawee at mi jot nag gox goxaan yi ci mel ni Jabang Estate Mariama Kunda ak Sukuta Neema ñoom nag dañ de encontrer jafe-jafe bu ñu duggee nag ci nawet gi surtout ma nag bu fekkee ne taw bu am doole moo wàcc comme bu xewoon nag ci samde bi ak ci dimanche bi dañ de am naka jafe-jafe gu bari ndax nag ndox mi amul fu moo jaaree seen foofu ci biir kër yi nag la dee dugg ci matuwaay googu vice président bi moom nag ñaax na Aba Sanyang moom mu doon ministre bu ñu dénk wàllu pàkk gi ak nguur gu ndaw gi pour mu taxawu ñu nekkee sa diwaan googu seet naka nam la moo def pour saafaraal leen seen jafe-jafe gi ci num gën a gaawee ñi nga xam ne naka ñoom ñoo yàqule ñu toogee sa Joshua mu bokk ci diwaanu KMC bi ak it ñu nekkee sa Brikama mu bokk si tundu West Coast region bi ñoom naka ñu ne ñu ngi oo nguur gi pour mu jàppale leen ci num gën gaawee ndax méttit goo xam ne naka boobu lañ nekk di dund métti na ci seen kaw ndax ay mborom njaboot leen yàqute gi nag mu ngi xew si weerub julaay juróom-ñaari fanam ci atum 2021 te naka taw bu am doole bu wàcc ci biir réew mi bàyyi na naka li war a toll si ay téeméer ak i junne nit yoo xam ne si jamono ji amuñu fu jonkoon ak seenum njaboot ñu bari tamit yàqule nañ si am na ci ñenn ñoo xam ne naka kilifay seeti nañ leen waaye tamit am na ci ñenn ñoo xam ne naka ba tey amuñ naka kuy yegg ci ñoom pour masawu leen waaye naka si jamono ji kilifa yi naka ñoom ñu ngi jël matuwaay bi bugg a cee taxawu ci num gën a gaawee jàppale askan wi saafara leen bi la jafe Thank you. jëwrin bu ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi ci biir réew bu Gambie bi ñoom ñoo lëkkaloo ak seen àndandoo ci mel ni World Bank ñu commencé naka health scheme boo xam ne naka ñu ngi ko nekk di def ci biir réew bu Gambie di ci bindu naka askan wi matuwaay gi naka dañ ko jël rek pour gis ne askan wi bindu si scheme goo xam ne naka ñu ngi ko isi xam ne fépp foo dem ci biir àddina si bu fekkee ne naka feebar nga nguur gi naka nañ la mën a fayal wala sax sa scheme gi koppar goo xam ne naka moo fa nekk boobu na la mën a jàppale pour nga faju naka ci bépp réew goo nekk ci biir àddina si mu tax naka kilifa yi ñu ne ñu ngi ñaax naka doomi réew yi pour ñu génn ñu bindu naka ci campagne goo xam ne boobu lañ nekk di def pour gis ne naka askan wi yëpp bindu nañ ci health insurance scheme goo xam ne naka ñu ngi ko def ci biir réewu Gambia bi ministre bu ñu dénk wàllu wér bi ñoom ñoo lëkkaloo seen àndandoo bu ci mel ni World Bank ñu commencé naka ab mbir goo xam ne dañ ko boole ci taarix pour gis naka campagne lañ jàppale naka doomi réew yi Gambia ni ñu bindu naka seenu tur si health insurance scheme gi ndax ñu mën a taxaw seenu bopp ci lu aju si seen wàllu wér gu bi ab fépp fu ñu mën a nekk ci biir àddina si campagne gi naka ñu ne ñu ngi cee oo doomi réewi Gambie yëpp pour ñu génne naka ñu bindu te naka lii ñu ngi ko commencé si SOS Children's Village bu nekk sa Bakoteh. kilifa yi naka seen campagne gi dañ ko jaarale naka ci wàllu xalaat gi képp koo xam ne naka mu ngi bindu ci lii na nga xam ne naka ci machine bi lañ koy def tamit naka na la yóbbu li war a toll si ñaar téeméeri at te naka doon na mbir boo xam ne naka ñu ngi ko def ci biir réew bu Gambie bi ginnaaw ñaar téeméeri at ci ginnaaw. Lamine Fati moom miy bind ñi nga xam ne naka ñoo dee juddu ak ñi génn àdduna nekk di liggéey si ron jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram bi moom naka wax na ne matuwaay goo xam ne naka ñu ngi ko jël pour gis ne bindu nañ askan bi ci li nga xam ne naka mooy ci machine gi doon na mbir goo xam ne naka moom mu ngi koo rafetlu te yi dina leen jàppale te loolu naka ne yóbbu seenub liggéey bi fu sori mu ne kenn ku ci nekk naka sa tur bu nekkee si machine bi bu fekkee ne sax am nañ ab jubte ci seen wàllub liggéey bi dañoo delluwaat naka ci machine bi ñu xool ko loolu dina leen jàppale ci seenub liggéey bi tamit dina tax seenub lëkkaloo gi ak seenub àndandoo mu gën a dëgër ndax nañ mën a xam naka lim nga xam ne ñoom ñoo bindu ak nañ leen di mën a jàppalee. bu ñëwee naka ci biir réew bu Gambie bi pour nit ki naka am baat certificate mi maanaam kayitu juddu yow naka danga nga war a doon koo xam ne naka da nga war a yóbbu say kayit kayit yi wane na naka ab doomi réewi Gambia la muy sa baat certificate bi muy sa kayiti juddu gi ak da nga war a yóbbu naka sa infant welfare card bi yóbbu sa passport sa driving license bu fekkee ne naka yow ab mag nga bu fekkee ne naka yow mag nga da nga war a yóbbu naka sa kayiti waajur yi ñu ne naka bu fekkee ne amuloo lii yëpp da nga war a yóbbu kayitu attestation bu alkaali bi di signé di wane ne naka yow ab doomi réewi Gambia nga GNPR moom mu doon nag national director ci banxaasu SOS Children's Village bi ba mu doon gaaral kàddu mu ne si jamono ji naka ñoom ñu ngi def seen kéemtulaay kàttan pour lëkkaloo ak ndaw ñi ak ñi nga xam ne naka ñooy tuut tànki pour gis naka bind nañ leen mu ne ñoom naka si jamono ji ñu ngi waajal seenu màggalub ñeent fukki atub liggéey goo xam ne def nañ ko ci biir réewub Gambia bi mu ne ci weerub novembre si atub 2021 ñi nga xam ne naka ñooy kilifa yu nekk si néegub député bi maanaam si pencum réew mi ñoom naka teraloon nañ ab sarta wala sax ab xaatim goo xam ne naka ñu ngi ko doon gestu muy health insurance act bii nii mu ne am nañ ci naka ab luwaagu dëgg goo xam ne naka boobu lañ koy jaarale mu ne si weeru janvier atum 2022 ci lañ wax ne naka doomi réew yi ñu génn naka pour register si national health insurance scheme bi nii mu ne si juróom ñaari at naka ñu ngi ko isi pour gis ne dooleel nañ ci askan wi tamit naka bugga ne ñëpp naka ñu register wu mu continué di wax ne naka lay def mooy nga yóbbu naka sa kayit bi wane ne yëpp ab doomi réew yi Gambie nga na nga mën a register wu mu continué di wax ne naka health insurance scheme bi képp koo xam ne rek ab doomi réew yi Gambie nga say yelleef nga da ko war a am ndax moo laa dooleel naka ci sa wàllu wér-gu-yaram bi mu ne waaye naka tu tànk yoo xam ne ñu ngi toll si juróomi at dem ci suuf ñooñu bokkuñ si jigéen ñi biir yi bokkuñ si ndax naka jigéen ñi biir yi ñu ngay dem naka antenatal te loolu naka mu ngi leen di jàppale ci seen wàllu wér-gu-yaram bi tamit mu ngi leen di taxawu ci feebar yi sew yi mu ne tamit ñi nga xam ne naka dañ am feebaru xel ñoom duñ ci mën a bokk ajitale yi bokkuñ si ak i tamit waaye goo xam ne nag am na juróom benn fukki at ak juróom dem ci kaw mu ne ñii naka doon nañ ñoo xam ne ministre gi nag naka mu ngi taxaw seen yelleef bu ñëwee naka ci biir réew mi Lamine Fati ci wàllam naka mu ñëwaat di wax ne mu ngi ñaax naka doomi réew yi Gambie ni pour naka ñu jël matuwaay gi ñu register naka pour doole seen bopp health insurance scheme gi naka matuwaay la goo xam ne kilifa yi dañ ko jël pour gis ne doole nañ askan wi lu aju ci seen wàllu wér-gu-yaram taxawal naka mbir wér-gu-yaram bi dëgëral ko doole tamit wàllu liggéey bi te lii naka ñu ngi ko fas yéene def ak ñi nga xam ne naka ñooy doomi réew yi Gambie nii mu ne bu fekkee ne tamit nekkuloo ab doomi réew yi Gambie waaye yaa ngi yeewoo ci biir bu Gambie bi fas yéene nañ laa taxaw yeɓe ci insurance scheme génnee si samedi bi njiitu réew mi président Adama Barrow moom teg na xeer ci place koo xam ne naka ñu ngi ko fas yéene samp mu nekk sa Brikama ñu nar faa def naka ab university ñu ne naka buntu jàngikaayu kaw googu noonu dina jàngale lu ajo ci wàllub science wàllub ingénierie ak itamit wàllub technologie Brikama naka mu ngi bokk ci tundu West Coast region bi World Bank ñoom naka ñoo dooleel projet bi ci wàllub koppar banxaas bu ñu naan Finta Consulting ñoom naka ñooñu la ñu jox contract pour naka ñu liggéey place samp ko ki ñu jël ko rek pour gis ne doole nañ xaleñ lu aju naka si njàngoom métier gi projet bi naka ñu ne ñu ngi ci lëkkaloo al World Bank African Center for Excellence Programme university bi naka ñu ne matuwaay la goo xam ne na dañ ko isi pour dooleel xale lu aju ci wàllu métier yu ci mel ni chemical engineering architecture design and computer science matuwaay bi tamit ñu jël ko rek pour gis ne doole nañ naka jàngu kaw gi surtout ma naka ñoo xam ne ay ndaw leen xeer goo xam ne naka njiitu réew mi président Adama Barrow teg na ko wane na naka commencement wu liggéey goo xam ne nguurub Gambie bi ñu ngi ko nar a jël pour gis naka doole nañ lu aju ci wàllum njàng mi baaxaayam qualité ak itamit yokku xam-xam ndaw ñi lu aju ci mbir yi ñoo mën a jëfandikoo pour doole seen bopp ëllëg njiitu réew mi président Adama Barrow mu ne matuwaay gi naka mu ngi ko fàttaleel seenub jamono jamono joo xam ne naka ñu néew ñoo daan am naka jàngub kaw gi mu ne waaye naka terewul banxaas bu ñu naan national qualification framework bi ñoom naka ñu ngi ko taxawal pour gis ne dooleel nañ mbirum njàngub kaw gi dooleel xale yoo xam ne naka ñu ngi yem grade 9 dem naka ba si kaw mu ne looloo tax naka ñu isi banxaasub tivaat bi ak yeneen banxaasub njàng gi pour gis naka dooleel nañ xale yi lu aju ci mbirum njàngub kaw gi yokku leen xam ci mbir yoo xam ne naka moo leen di dooleel ëllëg ba tey tamit ñu ne dina leen dooleel ci wàllub science wàllub engineering technology ak tamit yeneen i biir yi leen di dooleel kilifa gi ba tey rek mu continué di wax ne nguur gi naka ñoom dinañ jël matuwaay pour dooleel université bu Gambie bi dooleel it bànqaas yoo xam ne naka ñoo nekk di yëngu ci wàllum njàng kaw gi nañ dooleel naka Gambia collège gi ak i tamit yeneen bànqaas yoo xam ne naka ñu ngi yokk xam-xam ndaw ñi mu continué di wax ne naka nguuram gi si jamono ji naka ñu ngi fas yéene dooleel seen bopp yaatal naka seen loxo pour dooleel xale lu aju ci mbiru métier gi ngir ñu mën a am naka seen degré yi Mata Touré moom mu fa teewal World Bank bi moom it gaaral na kàddoom di wax ne seen bànqaas bi naka nañ continuer di lëkkaloo ak nguurub Gambie bi pour doole lu aju ci wàllum njàng mi ñeneen ñoo xam ne tamit gaaral nañ fa seen kàddu ku ci mel ni Ousmane Bojang moom mu doon naka gouverneur bu West Coast Region rafetlu na matuwaay gi di jaajëfal nguurub Gambie bi ci lu mu tànn naka seen tund gi pour defa naka université bi mu ne naka lii dafa ñëw ci waxtoom mu ne naka mu ngi ñaax ñi nga xam ne naka ñoom ñoo bàyyee school te fekk naka jeexaluñ pour ñu daw gaaw dem register naka si li nga xam ne mooy université bi ndax naka ubbi wuñ ko rek pour ñu jeexal njàng waaye nga xam ne naka ñoom ñooy jàng ba ci digg bi ñu bàyyi mën nañ faa dem naka pour jàng lu aju ci wàllu métier. mbokk yi xibaar yi lañ leen fi amaloon ci bëccëgub tey bi yaatal yi ngeen di si doon ànd ak Xadijatu Koli di leen jaajëfal ci ànd bi di ñaan yàlla mu may ñu ñeen doog jàmm jërë ngeen ci topp bi wasalaam.